Sene Info International. salaamaaleykum ñu ngi nuyu mbokki taalibe yëpp di nuyu mbokki jullit yi rawatina waa dëkk bi di di commencé nuyu bi ci xalifa bi di ko ñaanal suñu borom may ko mu yàgg fi loolu ànd ak wér. waaw dëkk bii di Daaru Salaam defe naa Sonacet min na fi ndax du gàmm moo ñu fi indi man moom damaa ñëw personnellement pour gàmm si waaye ku ne xam ne ne mercredi bi weesu ñëw nañ fi def opération ñun ak suñuy agent ci suñu njiit ak ki ñu toftal ci moom di président El Hadj Mbaye Thiam dëkk fee Kër Madiabel ak mboolem ñun ñi nga xam ne ñoo topp seen ginnaaw defe naa oto dëkk bi miin nañ ko suñu jëm yi dëkk bi miin nañu ko nga xam ne opération bi ñuy ñëw kerek indi nañ fi ay ne maara deytaale waa dëkk bi gis nañu leen def opération dëkk bi tout kaw ba buntu kër sëñ fépp nit gis nañu def fi opération boo xam bu mucc ayib la ngir gàmm gi la nekk gàmm gu mucc ayib di ñaanal sëriñ bi mu yàgg fi ñi ngi sant itam suñu agents yooyu nga xam ne indi nañ leen fi ndax bi ñu ñëwee activité ak maanaam jàmbaar gi ñu wane fii kon rawatina lépp loolu lépp wane nañ ne maanaam sëriñ bi kon liggéey na liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la man nag ñëw naa fi personnellement ngir gàmm si fekk fii itam fii kii ñuy wax seen info ak ki nga xam ne mooy Daaru Salaam TV man ci mbokki taale bi nga xam ne ñoom lañu àndal ci liggéey bi ñoom itam gis nañ leen ñu def liggéey boo doon ne ñëwuñ fi woon mille crédit kon dëkk bi tey du ko mel te ab bu gàmm gi weesee dinañ fi dellusiwaat moo xam kañ lay doon defaraat a mel ku ne loolu moom defe naa ñëpp ko ñun ñooy waa SONACED ñi leen di wax ICC SONACED départemental bu Nioro ñun ñooy liggéey boobu ak suñuy njiit yi nga xam ne ñoom lañ ko àndal waaw ñun maanaam euh, département bi lañ yor yoruñ dëkk bi kese département Nioro bi mu ngi nekk fukki commune ak juróom defe naa cinq communes yi jot nañoo am ci sunu président yi maam seen liggéey bi nga xam ne def nañu ko dañuy def nag dëkk yi nga xam ne amuñu na dëkk yi nga xam ne ay dëkk diine lañu dañuy def dañuy xool bis yoo xam ne dina méngoo ñu def opération. sans gàmm ak lu dul gàmm. dem nettoyé dëkk ba. wër dëkk ba xool fépp fu mbalit nekk. ndax dëkk bi boo xoolee gis nga ay bag san ci ginnaaw mooy bagi verte yi ngay gis nii. dëkk defe naa Sonacet ñoo ko fi indi. ngir dëkk bi bu ñu baleetee te gisuñ jëmm yi. ñu dem sotti ko ca bag ba. su feesee ku ñuy nekk fii ci dëkk bi. waaw waaw sëñ Moustapha moo yor liggéey bi. Mm-hmm. day woo suñu chef suñu chef wooñu nañu diw diw maa mën a jël leen ko mm-hmm. ñëw tegaat bagi seen même place dëkk bi waat defaat ko ba saabu feesaatee ñu wooñu mm-hmm. bu gàmm gi jub see nag ñu jël ñëpp mbooleem asan bu nekk fii moo xam poroxaan moo xam ñooro mm-hmm. maanaam nga xam ne jege na fii ñu jël leen woo leen ak seen i oto ñun ñëpp ñu booloo mm-hmm. ñëw ci dëkk bi natuwaayee dëkk bi ba dëkk bi set pour ñu waajal gàmm gi pour gàmm gi nekk gàmm gu mucc ayib defe naa loolu ñëpp teg nañu seen bët